Euh, ci 2014 euh, mu daal di voté ab loi ngir wàññi euh, location bi file ci Sénégal rawatina file ci Dakar mais gis nañ ni depuis lors li nga xamante ni moom mooy prix wu location yi dafa doublé wala mu triplé ñi nga xamante ni locataires yi ñuy gën a am ay jafe-jafe ngir mën a am dëkkukaay dëkkuwaay ñëpp di ko waxtaanee ba gis ngeen njiitu réewu Sénégal fan yi wax na si ne daañu xoolaat loi boobule ñu tëggoon ci atum 2014 naka naka lañ koy euh, appliquer ngir amal waxtaan ci euh, jafe-jafe luwaaye bi file ci Sénégal ak tamit yan solution la ñu daal di mën a apporter ba mu woyof euh, moo waral ñu dalal ki di Euh, Elimane Sall nekk euh, président bu association pour la défense des locataires du euh, Sénégal ñu yëngatu ci lépp lu soxal àq ak yelleefu locataires yi ñu koy nuyu di ko dalal jàmm Elimane Sall. jërëjëf ndey Comba maa ngi lay fay man itam di la gërëm di la jaajëfal ci invitation bi. Euh, di rafetlu aussi liggéey bi ngeen di def euh, ci vraiment euh, société bi ci ci ci réew mi parce que à chaque fois di ngeen agité ay sujets yoo xam ne vraiment Euh, ku ci déglu rek dina ci jëlee njariñ donc maa ngi lay gërëm bu baax a voilà mi ngi noonu Elimane ñu lay euh, remercier ci sa disponibilité euh, en tout cas association consommateur yi fi nekk bari na kuréel yi fi nekk bari na mais mosuñoo dégg ab association boo xamante ni dafay défendre li nga xamante ni mooy droit wu ak locataires yi idée bi naka la ñëwee exactement mu nekk idée bu original parce que fu ñuy waxee jafe-jafe jëm ci locataires yi rek xel mi dafay dem ci seen kuréel gi. ak ci Elimane Sall comment est venue l'idée idée bi naka la ñëwee. jërëjëf Ndeye Kumba idée bi nag euh, ñëweewul nu dul euh, gisoon benn injustice boo xam ne euh, ça s'est passé devant nous ñu taxaw suñu kër ci période nawet gis benn jigéen boo xam ne moom ak njabootam dañ leen expulsé alors bi ñuy génne bagage yi ba jal ko ci biti di ut oto pour bu leen yóbbu rek taw bi so moom ak doom yi ak yëpp ñu tawte ak seeni bagage ci biti alors bi ñu toogee man ak sama ay yenn xarit ma ne leen mais lii quelle que soit loi bi ko autorisé mm-hmm. il faut ñu humaniser ko et defe naa ne foofu la juddoo mm-hmm. ñu commencé nag euh, def ay démarches déposer suñu demande de def démarche yi ba ministère de l'intérieur jox ñu suñu récépissé auparavant ma woon sax ay affaire association de consommateurs mm-hmm. l'idée m'était venue de défendre une catégorie de personnes bu nga xam ne euh, dañu nekk ci ay jafe-jafe te gisuma woon à ku ciy wax te itam am na question yoo xam ne ça intéresse tellement les gens mm-hmm. que boo ci waxul daanaka état du ci wax dara mm-hmm. ci boobu la ñu jóg commencé nag di agiter la question ba yeneen association yi nga xamante parce que au début il faut dire que ñu ci bëri dañu amoon complexe su mm-hmm. wax ne locataire lañ Euh, bu fekkee da nga jiite da ngay wane ne yow am nga kër voilà tu ne parles que des autres euh, problèmes euh, yi nga xam ne consommateurs yi moom la ñuy jànkonteel mhm. mais bii dama ne cette question spécifique mhm. il faut ñu jël ko à bras le corps mhm. ñi nga xam ne ñu ngi fel seen àq ak seen yelleef ñu jéem leen jàppale ci li nga xamante moom la ñu mën et depuis lors aussi ñu ngi ciy def lu luñ ci mën Euh, baax na bon na euh, de toute façon ñu ngi ciy góorgóor mhm. ba nga ko fondé ba léegi euh, ñu ñëw am na ñu ñëw sollicité la yan cas moo la ci gën a marqué benn wala ñaar. waaw bëri na mais li ma ci gën a marqué nag bon ça me vient à l'esprit benn paa la woon boo xamante ni nii ci Pikine. Mhm. góor gi du gis bu baax. moom ak soxnaam ak ay doomam ñu luye leen boobu ba léegi war na def ay ñaar ñetti at bi ñu leen loué euh, borom kër gi dem na ba gis koo xamante ni nii fay na ko lu ëpp ndeysaan mu bëgg a génne góor gi bind ci turu góor gi ne ko man d'accord naa ne damay génn fii euh, signéloo ko góor gi mhm. alors jarbaatu góor gi bokkoon ñu bokkoon fu ñuy liggéeyee mu wax ma ko bi ma ñëwee jàkkaarloog moom ne ko ah papa ndax lii yow yaa ko signé parce que da nga wax ne mhm. yow pare nga pour génn fii mu ne ma man ma gis mënuma liir jox nañ ma këyit rek ne ma signé automatiquement ma contacté ñi nga xam ne ñoo ko defoon loolu. fekk jaloon na bagage yi amul fu mu dem. amul fu mu dem automatiquement ma woo ñi nga xam ne ñoo ko loué ma ne leen mais attention kii bu ngeen ko génnee dinañ dal ci seen kaw parce que yéen a ngi ko signé law loo xam ne c' contre son sa volonté. xamul xamul mënul lire gisul bu baax. automatiquement ñu xaw a attaqué nañ ma sax ba menacé ma. Mm-hmm. Euh, góor googu noonu la mujjee ñu bàyyiwaat ko ci kër ga euh, mu toog ndeysaan dafa dem ba yéene ma ñaanal ma dem bind téere may ma wax dëgg yàlla euh, loolu marqué na ma beneen bi nga xamante ne nag moom peut-être moom lay terminer mhm. mooy xale bu jigéen boo xam ne boroom kër gi da ko doon jéem a doxaan mhm. bi mu bañee mu commencé ko indil problème coupé ndoxam coupé courant ba pare nag dix heures mu tëj bunt bi kooku bi ñu woowee ñu dem borom kër gi ne non de toute façon moom këram 10 heures la koy tëj euh, ñu xeex ci xeex ci xeex ci ba kooku dellu siwaat ci ay droit am finalement malheureusement borom kër gi jox na ko congé ne ko sama doom bu jigéen moo fiy dëkk si mu génne ko mais euh, dafa ñaaw parce que nit bu fekkee yàlla suturaal na la nga am immeuble ay milliards ki nga xam ne tey mu ngi fay cent mille devant un milliard c'est rien du tout waruloo ko toroxal parce que dafa nekk ci situation yu difficile waruloo ko toroxal parce que da nga yaakaar ne da nga luye rek da nga ko war a xeeb mhm. nit ki lay luye ki nga xam ne moo lay fay xaalisam weer bu jot xamoo fu mu ko jëlee mhm. euh, waruloo ko néewal doole waruloo ko xeeb te gis nañ ne nag ñaare sax olof yi dañ koy wax mhm. ku la luye yab la waaye nag bu dul woon ñiy luye tey bâtiment yi ni ñuy pousser comme des champignons duñ ko gis fii donc il faut ñu joxaat respect locataires yi surtout bu fekkee mu ngi wàccoo ak li nga xam ne moom mooy warteefam muy fay indiwul benn perturbation ci kër gi. Mhm. régulièrement mu ngi lay jox xaalis bi mu am mu néew mu bare. voilà bi nga bi nga fondé association bi am na ay sénégale yu ñëw pour bokk ci kuréel gi. Mhm. bari na bariwul ñaata ngeen. ah bon fi mu ne nii nag euh, mhm. gëj nañu def décompte bi mais euh, bari na. bari na trop amul bis buñ dul toog. ba démb démb démb rek. Euh, am nañ ay adhérents. alors euh, adhésion yi nag euh, achat wu de membre la rek euh, ñun nag ñu ngi ci góor góorgóorlu ak vice président bi nga xam ne avocat la moom xëj na euh, lu ci bari moom moo ñu koy régler au niveau des cours et tribunaux mhm. bu mënta dem yónni clercam dinañ dem sax ba di constituer wu gratuitement pour ñi nga xam ne ñooy locataires yi muy maître bassiru Sakho nekk avocat à la cour ma remercier ko bu baax mais daal ndey kumba pour tout dire mhm. am nañ ay adhérents yoo xam ne vraiment euh, yu bare lañ tey Medina euh, am nañ fa ñoo xamante ni nii sax seen groupe WhatsApp la ñu def. Mhm. Euh, di waxtaan ci seen biir et cetera donc bëri na ñoo xam ne daal vraiment. adhéré nañ ci ñu ngi ci cause bi. li ci metti rek nag mooy. Mhm. souvent on n'a pas moyen de notre politique. parce que mhm. mënuloo nit ki nga xam ne ñu ngi ko ñu ngi ko mu nekk ci jafe-jafe. ñu indil ko kayitu huissier en plus. problème mu fay lu euh, luwaas bi ñu ne ko yaay fay frais huissier yi am na ñoo xam ne sax dañ naan la. maanaam huissier bi la war a génne yaa koy fay. très bien mmh. donc bu fekkee tey da nga jël néegu euh, vingt mille wala vingt cinq mille benn néeg. Mhm. ñu indi la acte huissier ne la plus de trente mille nga war a fay huissier bi en plus difficulté yi nga xam ne yow am nga ko loolu problème la ba mhm. pare ñu tegal la ci parfois pénalité ne la jour boo toogee fayoo rek wala à partir du cinq jour boo toog fayoo rek teg nañ ci. dañuy teg ci location 3000 wala 2500. c' est injuste. et dafa mel ne léegi yenn valeurs yi sax dañ ko perdre fii au mhm. Sénégal. Mhm. parce que amatuñu yërmande. nit ki bu fekkente ne dafa loué amul doole bu fekkee mu ngi fay xamoo nu muy def ba am ko euh, muñalante daal baax na ci. Mhm. loolu nag tekkiwul ne am na ñoo xam ne. wax dëgg yàlla ñoom ak seeni locataire mais mais ñiy dëkk ci kër jàmbur yi te duñ fay nag. ah très bien parce que bari na si dëkk bi ñu bëri dañuy def confusion. locataire. Euh, bu signé contrat rek il est mooy man d'accord naa ni dëkk naa ci kër Ndey Kumba dama ko war a fay parce que tim mm, bu ñu waxantee dëgg ñi nga xam ne ñoo kër yi tabax ko am na ñoo xam ne ci la ñuy dundal seen njaboot am na ñoo xam ne liggéey lañ ko def. Mm. am ñoo xam ne ñu leb xaalis banque. merci mm-hmm. dinañ ci ñëwaat ci leb xaalis banque boobu. Mm-hmm. parce que tey bu fekkee ndey kumba danga nga jóg dem lebal sa bopp xaalis investir. Mm-hmm. waruloo kut ko kut nga ne da nga koy. teg ci ndoddu locataire bi. foofu il faut ñu ñëwaat boobu tamit mais euh, nit ki nga xam ne dem na ba retraité kurti kurti ba am benn R plus 1 ah ne bu ma retraité damay investir dans l'immobilier di dundal sama njaboot. kooku. mënuloo toog weer bañ koo fay parce que yaa ngi créer beneen problème am nga problème mais yaa ngi créer beneen problème ñun waxuñu kenn nga dëkk ci kër nit doo ko fay waxuñu kenn nga dëkk ci kër nit yàq ko li ñu wax mooy ki nga xam ne weer bu jot mi ngi fay le cinq mu fay la d'ailleurs ñun balaa ñooy intervenir sax dañu lay laaj sa quittance de loyer mhm. sa dernière quittance boo ñu ko wanee ci la ñuy soog a euh, engagé wu léegi-léegi nag jafe-jafe ak àdduna ñoo ànd mhm. tey ci Covid bi par exemple am na ñu bëri ñoo xam ne dañu perdre seen liggéey am ñoo xam ne nii euh, dañu leen yóbbu chômage technique am ñoo xam ne seen liggéey yàqu na ñi nekkoon dans le secteur hôtelier bon ñoo ñu tey ku ci dëkk dix ans ci kër mm-hmm. musuloo yoreel kër borom kër gi benn dërëm mm-hmm. nga xëy xëy covid bi ñëw euh, nga am problème munoo fay sa borom kër quand même borom kër gi bu dee nit bu dee nit la mm-hmm. war na dawal compréhension parce que yàlla nag bu la suturaalee da ngay suturaal sa bopp waxuñ ko nag nag ko may waxuñ ko nag ko sarax mais na def système de moratoire bu fekkente ne dem na ba waa ji nangoo jël engagement na ko ne booy fay chaque fois mën nga cee teg as tuut ba li nga ma yoreel nga éponger ko. Mhm. mais dañuy gis ñoo xam ne automatiquement dañu lay yóbbu ci yoon. dañuy gis koo xam day dëkk 5 ans di fay normal day nu weer wala ñaari weer su fayul ñu ne ko génnal. même plus. Mhm. am na ñoo xam ne la borom kër ga yëkkatee. ñoom ñoo ko fay borom kër gi. ba mm. borom kër gi yëkkati R plus 1 plus 2. Mm, ñu ngi fay. mais heure boo toogee benn weer fayoo day mel ne yow. musoo fay musoo fay. loolu tim je pense que il faut ñu humaniser un peu les nit ki loi nit moo ko def euh, nit kenn matul. su fekkee dañ ne la ku fayul benn weer boo demee ci juge bi daf koy constater rek expulser la. Mm-hmm. parce que euh, euh, euh bi protégé wul aussi sur ce plan là. locataire bi locataire bi heure bu toogee fayul. am nga droit amatul benn protection. non amatul très sincèrement parce que violé na contrat bi nga xam ne moom la signé. ak borom kër parce mm. moom moo signé ne. Mm-hmm. chaque le cinq dama lay fay. te tim neexul tim nga occupé ay locaux wu nit euh, dëkk fa yàgg sa njaboot ñu bàyyi la fa nga bañ a fay. Mm. loolu yenn wul maanaa te kenn mënu ko nangu. Mm. mais nag doomu aadama ak jafe-jafe ñoo ànd nit bu demee ba tollu diggante ñëw expliquer la wax la boppam war nga ko muñal. d'autant plus que moom nekkul dans les dispositions bañ la fay. parce que yow jàpp nga ni maanaam euh, loi bi dafa war a gën a protéger locataire ah mais bien parce que parce que gis nañ comparé bu ñu jëlee exemple France foofu pour nga génne locataire c'est tout un processus même ici waaw même fii pour nga ñëw ne nit rek génnal sama kër ah, c'est tout un processus même bu fayul boo xoolee pratiquement ni ñu tëggee loi France mhm. pratiquement moom rek la ñu def fii mhm. locataire bi tant que mu ngi fay munoo ko génne munoo ñëw rek même bu fayul munoo ñëw rek ne ko suba suba di nga génn. wala non non non c'est pas possible. kooku locataire dafa war a bañ te gis nañ ñoo xam ne. Mhm. buñ la waxee génnal nga bañ. li ñuy njëkka def mooy ñëw wekki bunt yi wala ñu couper courant bi wala ñu couper ndox bi te loolu waxtaan nañ ci ak kilifay Senelec waxtaan nañ ci ak kilifa Sen'Eau c'est pas normal am na ci ñoo xamante ni nii Euh, euh, dañ koy def nga dem police police ne la bon ñun suñu du ñun ñooy régler loolu mais loolu voie de fait la. mais procédure normale bi naka la bu fekkee euh, locataire bi fayul ba borom kër gi bëgg ko expulser. normalement procédure bi mooy. procédure bi naka la war a dem dem ci usier de justice. Mhm. moom borom kër gi. su demee ci huissier même mois de de ah, bu fekkee toog nga benn weer. kese benn weer rek. Mhm. mën na la yóbbu assigné la. Mhm. assignation bi da ngay dem ci huissier ne ko kat dama am locataire bu dëkk sama kër fayu nga fay huissier bi mu defal la acte bi. Mhm. Euh, assignation nga ñëw jox ko locataire bi pour ngeen dem comparaître au au tribunal ci assignation boobu datu comparution bi daf ciy nekk su ngeen demee ci juge des loyers. bu la nee ndax fay nga nga ne ko noo yoreel naa ko la plupart du temps juge bi day ordonner expulsion. expulsion ça c'est c'est c'est c'est automatique. Mhm. mais bu fekkente ne. bu ordonner expulsion bi. bu ordonner expulsion bi c'est immédiate wala. su fekkee ordonance bi génn na parfois mhm. juge bi bu jugee ba pare. Mhm. ordonnance bi souvent ça peut prendre du temps mën na jël quinze jours dem ba un mois. Mhm. Euh, mu soog a génn mais bu génnee dangay demaat ci huissier bi nga xamante moom moo la assigné woon. mu ñëw ne la ah ordonnance baa ngi nii c'est exécutoire. mais ba tey boofu pour wan la ne yoon dafa dafa may locataire bi euh, ay possibilités. buñ la indilee expulsion boo xam ne juge bi moo ko signé et d'ailleurs la seule voie possible. possible. noonu la war a demee. amul kenn ku mën a génne locataire. juge bi rek moo ko war a expliquer même pas borom kër gi. non non non mhm. borom kër gi munu ci dara. bu ñëwee na la génnal su la neexee nga bañ daf la war a yóbbu ci yoon yoon ordonné sa expulsion soo bañee nag ci booba dañuy indi ay agent assermenté ay police wala gendarmerie ñu ñëw par la force ñu génne la mais bu fekkente ne da nga ñëw jaay doole locataire bi mën nga fa def li tubaab di wax voie de fait mhm. mooy loo xam ne jotewul ak loyer dara mhm. nga nga nga créer problème boo xam ne. comme li ngay wax nopp ku jigéen mu bañ. ainsi de suite nga ne ko génn sama kër comme ça y' a du tout dans dans dans dans dans le dans le secteur. wala toog ba yàgg euh, euh, benn waay ne la looy louer sa appartement bi. nga ne ko locataire bi cent mille mu ne man je paye cent cinquante mille fii dafa baax. et d'ailleurs kon naa ko génne dugal la. loolu moo provoqué. Mhm. ñu ne dootuñu loué sénégalais. Mhm. ay étranger la ñuy loué. am na ñoo xam ne boo ñëwee boo nee sénégalais wala nga wax olof. boobu tamit ça pose problème. duñu la mais c'est c'est illégal. Mhm. c'est illégal dem nañ ba ci di la laaj bulletin de salaire man sam papa sax musuma laaj sama bulletin de salaire. à fortiori yi parce que léegi da ut euh, location ñu naan la indi ñu sa euh, certificat sa attestation de travail ñu xam looy liggéey ba xam mën nga fay wala mënoo fay c'est extrêmement mhm. parce que loolu li ñuy wax euh, protection des données personnelles daf ko tere mhm. nit ki su fekkee d'ailleurs c'est même pas plausible parce que nit ki mën na la jox loolu yëpp nekk un mauvais payeur mën na la jox bulletin de salaire mën na la jox contrat de travail te du fay normal nekk un mauvais payeur. Mhm. donc il faut que ñu harmoniser ko de telle sorte que nit ki bu fekkee mu ngi fay parce que man li ma gëm. Mhm. et je suis bu fekkente ne prix yi c'est abordable. wax dëgg yàlla locataire bi nga xam ne fa lay suturloo moom njabootam. du bëgg ku xaawi suturam bëgg ku xaawi suturam mais parfois da ngay ñëw ñu ne la deux cent mille deux cent cinquante mille yow soxla nga foo dëkk ma da ngay jël malgré mhm. boo fayee un mois deux mois. affaire yi commencé am jafe-jafe. ngeen dem tribunal yéeg wàcc ñu ne bon locataire bi dëkk na sama kër 6 mois génn fekk yow yaa ko cheral mhm. tey bu ñu demee ba borom kër yi parce que loolu aussi il faut réfléchir faut pas ñoom ñu indi problème mhm. foo xam ne amu fa mhm. tey bu fekkente ne dem nañ ba borom kër yi di laaj 4 mois même plus balaa ngay dugg alors que yoon 2 mois la bi 4 mois 5 mois ngay dégg 3 mois c'est révolu illégal c'est illégal <laughs> parce que 3 mois yi dañ la daan wax naan la caution la avance commission commission commission boobu sax c'est c'est discutable parce que du figurer ci contrat bi mhm. la defal quittance loi loi lan la reconnaître deux deux mois kese mooy caution avance te caution bi booy génn dañu war a def état des lieux parce que normalement booy dugg ci kër dañu war a def état des lieux contradictoire hmm. nga ñëw kër ga meloon merci ba nga fay dugg ak ah, bi ngay génn nu mel ñu bind ko ci kayit hmm. ne bi may dugg peinture bi nii la mel loke yi lépp nii normal nga bindu signe moom mu yor benn nga yor benn sooy génnaat da nga ko war a wàcc en l'état loolu moo waral caution bi su fekkee mu ngi ci état bi nga ko fekkee woon mhm. et d'ailleurs loolu sax c'est discutable parce que day Comba mhm. mënuloo dëkk ci kër dix ans te mur bi sax du xoosu wala état nga ko fekkoon c'est pas possible c'est impossible donc mhm. voilà donc caution boobu su fekkee da nga mettraat kër gi en l'état amuloo arrière facture bàyyiwuloo fa arrière ndox wala courant dañ la koy delloo. Mm. mais la plupart du temps. bala ñoo locataires yi ñuy déglu dañ naan la tëdd ko. tëdd tëdd ko mm. nga génn sa caution. merci wala parfois sax nga génn bëgg a jot sa caution. duñ la ko jox mm. te yooyu ñun li ñuy jooy mooy bu fekkee tey da nga soxla sa caution wala nga ne jox leen ma deux mois yi ma leen joxoon damay génn bu ñu bañee amul automatiquement foo mën a dem ñu régler la ko. tey euh, bërki démb ci côté Mamel Wokam. dafa am benn fii bu ñu woo moog yaayam ñoo dëkk ci kër gi. ameel na borom kër gi parce que liggéeyam dafa am ay jafe-jafe mais jox na ko toutes les garanties que ni dina ko fay dina ko fay mais dafa toog ba guddi au delà de minuit borom kër gi c'est un étranger ñëw di weq buntu bi di ko saaga mm-hmm. naan ko menteuse lu nekk mu traité ko ko kooku daf ñu woo di jooy alors bu demee gendarmerie euh, il faut des preuves mm-hmm. borom kër gi s'il n'est de bonne fois danaan la c'est pas moi c'est pas moi alors beneen bi mooy da ngay ñëw ñu indil la këyitu assignation mooy lii la huissier bi di indi. indil yow nga tiit ñu ne la ndey kumba yoreel nga ñu ñaari weer. Mhm. bind ko ci këyit bi xam nga loi daf ne la soo ko xasee fay rek annulé na procédure bi. Mhm. boo fayee rek daf koy annulé. day annulé dootuloo dootuloo dem tribunal. Mhm. léegi yow de bonne foi fay nga deux mois yi mais ñoom dañu lay dem ci sa ginnaaw continuer procédure bi. fay nga ba pare mais dañu récupérer seen xaalis mais dina na génn sama kër. merci beaucoup yow fayee ba pare. ñoom dañuy dem jouru audience bi yow da nga naan de bonne fois comme fay na jarul may dem ñoom jouru audience bi ñu dem ne juge bi li fayul moo tax ñëwul su ko defee ñu juger la par défaut hmm. expulser la ñu jël këyit ba nag téye ko booy am retard de paiement rek ñu indil la ko hmm. ne la yow génne woon nañ la ba pare nga nekk fa nag jaaxle naan pourtant man fayoon na hmm. euh, maanaam daal yaa ngi fay mais dañu lay bundu xataal très bien léegi bu ñu demee ba lay génne. Mhm. parce que foofu maa ngi ci won sànq. Mhm. borom kër gi amul droit ñëw rek ne la bon euh, mois prochain na nga génn wala dans deux jours wala non congé normal six mois la. six te congé bi da nga koy jaarale ci huissier du borom kër gi moo koy bind du la ko wax. Mhm. day dem ci huissier ñu ut une voie légale. bind ne man day kumba dama soxla sama kër d'ici six mois may naa la délai. parce dama koy occuper man. wala sama njaboot bu sës ci man. Hmm. wala damay toj di defaraat. wala damay defaraat. toj defaraat du peinture rek de. parce que hmm. am na defaraat yoo xam ne. am na jarul locataire bi merci beaucoup. Hmm. mais bu dee démolition reconstruction. borom euh, locataire bi dafa war a génn. parce que il y a des de sécurité à léegi nag bu fekkente ne kooku génn na. yow boo paree automatiquement moom mooy ayant droit. moom dafa war a ñëwaat. automatiquement te du fay caution du fay dara. normalement. mais bu fekkee jox nga ko keneen moom locataire bi su sawaree. mën na ñëw constaté par huissier yóbbu la tribunal di nga ko fay amende deux ans ci dernier montant wu location bi mu la doon fay avant nga koy génne. Mhm. mais malheureusement mais est-ce yi xam nañ ko. xam nañ ko mais xam nga souvent Ndeye Comba avec mhm. les lenteurs administratives. koy tayal yow tey yaa ngi ñëw di liggéey si fii. mën nga chaque matin nga xëy yéeg wàcc tribunal. Mhm. tu risques de perdre et ton boulot et ton appartement. donc il faut mu am des agences de proximité yoo xam ne pour régler ces problème ponctuels la locataire bi il faut mu am une justice de proximité aussi bien locataire bi que bailleur bi. Mm-hmm. parce que ñoom ñaar ñëpp ay sénégalais lañ qu'on se dise la vérité mais bu fekkee da nga am problème ñu naan la demal tribunal. yow boo demee tribunal pour lijjanti fa benn papier rek. c'est tout un problème da ngay passer la journée. toute la journée donc buñ buñ bu ñu soofantal loolu naan euh, locataires yi ñoo dul def lii locataires yi ñoo xamul seen i droit. Mm-hmm. mais bu ñu xamul seen i droit. nul n'est censé ignorer la loi mais tey ndey kumba mhm. jàng nga bu ma nee la surface corrigée ça vous quoi absolument rien surface corrigée am na borom kër yoo xam ne sax xamuñu ko te surface corrigée mooy néeg bi ñaata mètre carré la kër gi ci angle la ne wala ci booru géej wala c'est bien desservi et cetera mhm. Mhm. Euh, ñaata nga tabaxee kër gi et cetera yooyu yëpp daf ci entrer en compte ñun li ñu proposé woon ndey kumba mooy au lieu ñuy wax surface corrigée muy compliqué tout tout le temps ci bopp borom kër gi ak ak ak ñu bëri duñ sax li ngay wax exactement. nañ ko def ay zone de référence tey buñ ne fu mel ni Géejawaay ci zone périphérie yëpp nañu ne montant loyer bi deux chambres salon mënta passer temps chambre salon mënta passer temps chambre mënta passer temps merci chambre toilette temps très bien fixé ñu fixé ko def ay barème su ko defee yow booy loué di nga xam bu géejawaay laa jëm prix de chambre salon lii la léegi nag il arrive parfois. Mhm. que au sein du da xam ne yow zone ba nga dem réalité bi lii la. très bien état fixé na ko. maintenant waaw léeg-léeg aussi nga dem Géejawaay gis fa kër yoo xam ne ñoo gën a luxe. Mhm. kër yu nekk biir Dakar voilà. parce que borom aussi da ciy def. Euh, moyen mhm. mais bu boobaa da ngay ut un expert immobilier mu évaluer ko. wane ne kii kat li mu def ci këram commodité yi am na internet am na interphone am na gardien am. léegi ñu majoré légèrement parce que man maa bëgg a dëkk ci tibu kër boobu. Mhm. ñu yokk ko tuuti. Mhm. dem nañ ba defaat beneen proposition. tey ndey Kumba ñu ngi wax problème de l'emploi. Mhm. tey état mënoon na jël les étudiants en droit ou en sciences économiques ñu recruter leen parce que dafa amoon des bureaux d'enregistrement. des contrats dans les impôts dans les services fiscaux impôts et domaines mais bureau yooyu yu ci bëri doxatul tey boo jëlee fu mel ne bu foire li ñu polariser. Mhm. Parcelles euh, Almadies Mamelles. Mhm. mais yooyu yëpp bu ñu ñëwandoo foofu ci bureau bi la leen da leen di dañuy déborder. Mhm. nga jëm bu Pikine moo polariser Pikine Guédiawaye zone yooyu yëpp benn bureau d'enregistrement des loyers mënu ko nañu recruter ay jeunes diplômés. un étudiant de licence en droit ou sciences ko ñu def des bureaux d'enregistrement dans les communes. dans les communes. soo ñëwee di ut loyer ñu ne la forcément da ngay jaar ci bureau bi. Hmm, foofu ngay jaaree. très bien ñu enregistré ko au lieu agence yi fi nekk. non maanaam boobaa agence yi dañ koy supprimer. non duñ ko supprimer suñu enregistré ba pare. Hmm. ñoom dañuy am base de données bi. nga dem nag finaliser ak agence bi. Hmm. bu boobaa enregistrement boobu dina permettre ñu xam yan kër ñooy loué ci commune bi dinañ xam montant wu location yi ndax respecté nañ koom déet. ba pare di nga créer emploi parce que man bu ma ñëwee di enregistrer mhm. même bu dee 1000 francs lay joxe wala 5000. Mhm. dinañ ci fay kiy liggéey état am ci commune bi am ci. commune bi am et là du coup agence immobilière bi nag recouvrement lay def après recouvrement bi aussi bu fekkente ne fayeeku na mën na à chaque fois bu fayee ko man locataire bi. Mhm. pour sama sécurité ma demaat ci bureau d'enregistrement bi déposer fa sama quittance dina regle ñaari problème borom kër gi dina xam ne. man kat impôts yi recensé nañ ma donc damay fay fiscalité parce que am na ñuy luye seen kër duñ fay taxe duñ fay beneen bi mooy état bi mu bëggee dimbale locataires yi ci ci pandémie bi hmm. amuñ woon base de données xamuñ hmm. xamuñ xamuñ sax koy luye ku dul tey yow boo demoon boo jëloon def micro trottoir hmm. nga dem fu mel ne Médina wala parcelle walla nga laaj le maire le préfet toutes les autorités yi fa nekk nga ne leen ñaata kër ñooy loué parcelle duñ la ko wax xamuñ la ko wax ñaata nit ñoo fiy loué duñ la ko wax pour un état c'est pas sérieux mm-hmm. donc il faut que dañ ko war a organiser wa merci beaucoup mm-hmm. euh, secteur bi agence immobilière yi mais tamit agence immobilière yi ñoo indi problème yu bari parce que les kër yu bëri sax pour bañ a benn proximité ak locataire dañuy jël seen kër jox ko agence ñuy gérer à partir de cinq dootuñ la muñal et puis euh, quatre mois cinq mois yi ngay dégg yu si ëpp agence yi ñoo ko def yéen par rapport à ça lan ngeen di euh, lan ngeen siy def exactement. alors euh, démb rek ñu ngi woon ci benn chaîne de télévision ak le directeur du commerce intérieur. Mhm. alors xam nga agence immobilière yi dañ ko réglementé woon à partir de 1994. Mhm. ci lañ ko libéraliser. pour favoriser la création d'emplois et l'entrepreneuriat boo amee NINEA am registre de commerce et cetera mën nga ubbi sa agence immobilière mais il faut qu'on retourne à l'orthodoxie parce que bu njëkk avant 94 mm pour nga ubbi agence c'était pas facile mm il fallait que nga recruter quelqu'un qui a son master en droit ou en sciences éco en tout cas dans le domaine de l'immobilier ba pare il faut nga am loo déposer au niveau de la caisse de dépôt et de consignation, pour que tey bu fekkente ne daw nga ak xaalisu ay nit parce que gis nañ ko fi. Mhm. ñu wan la ay terrain nga ñëw déposer sa xaalis. wala ñu laaj la avance dajale kër yu bëri. Mhm. agence ba nga xëy fekkoo ko fa. Mhm. ay agence fantôme. alors buñ ko réglementé et d'ailleurs démb on a eu la confirmation euh, ci directeur du commerce indiwaat nañ ba fi nekkoon. cest à pour réglementer agence. merci beaucoup. léegi Ndeye Comba léegi da gis ku dox ba mu neex la rek nga ut sa benn kii magasin bu ndaw rek. démarché ay kër voilà wala nga tabax sa immeuble. waaw ubbi sa garage bu ndaw ci suuf. teg fa sa doom wala nga toog fa di ko gérer. def sa agence immobilière ba pare. Mhm. ñoom ci la ñuy fay seeni employé mhm. loolu dañ koy majorer ci. Mhm. Euh, ci ci ci prix loyer parce que dafay dafay dafay moom moo tax location bi gën a cher parce que borom kër gi su nee man appartement cent mille laa koy loué ñu ne ko non yomb na deux cent mille yomb na yomb na yokkal parce que ci zone bi mm-hmm. agence yu bari dañ koy def te la yokk peut-être seen poche la jëm mais non cest à ci la ñuy fay seen i seen i mm-hmm. ci la ñuy dund ñoom te loolu yëpp boo xoolee ndey kumba borom kër gi moom day toog di encaisser rek mm-hmm. lépp ci ndodd ki gën a néew doole muy locataire bi ci ci kawam lay donc il faut obligatoirement que secteur boobu état jëlaat ko en charge organiser ko ñun on a proposé que même bu fekkente ne mënuñu réglementer affaire au moins les contrat de location mu am traçabilité pour ñu xam kii fait quoi et kii est tey bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu réglementer loolu euh, ba pare agir nag sur le foncier parce que Euh, le règlement définitif du problème dans le long terme. Mhm. mooy nit ku nekk am këram kenn bëggul dee ci loyer. Mhm. mais lii ñuy fay. parce que di fay di fay ba retraité amatoo loo fay ça pose problème. te d' ailleurs cherté bi. Mhm. loolu lay indi si loolu lay il n' pas donné à. te ñëpp du ñu ay salarié te salaire u Sénégal xam nañ nu mu demee. boo ci fayee luyaas. bëgg cee génne say transport. Mm. ak li ngay dundee. non gis naa sax keroog ku posté Facebook mu ne moom fay na ba pare mais dina dee xiif si appartement mais c'est c'est voilà. grave c'est gravissime. et beaucoup de personnes dañ lay nga fay 150000 yi jeexal. très bien tëdd sa kër te leer na ma ne ko koy fayeeku 200000 250000. Mm-hmm. tegu ko lu dul ci bakkanam. Mm-hmm. recherche de profit fii la ñuy gisee ay milliardaires yoo mm-hmm. xam ne. toroxal ay baadoola yu amul dara. Mhm. ci la ñu nekkee ci la ñu dëkk. Mhm. ci la ñu nekkee milliardaire te war nañu xool nag seen digganteeg seen borom parce que yàlla bu la suturaale nga am ay immeuble yoo xam ne c'est des milliards war nga léeg-léeg. nga xool sa diggante nga ne man nan laay jàppalee ñii ba ñu mën a dajale ba am ñoom seen pantere bopp. et pourtant day kumba yana. Mhm. yana parce am na ñoo xam ne quand léegi léeg sax ñu ne la bon weeru koor bi may naa la ko wala tabaski comme charge yi day bëri mm-hmm. may naa leen am na ci ñu ñu baax gis nga mm-hmm. bi pandémie bi amee mm-hmm. suñuy représentant mbuur dañu ñëwoo woo ñu dafa am ay boroom kër yoo xam ne li ñu def c'est salutaire ñiy travailler dans le secteur hôtelier nekk locataire foofu ci Mbour dañu dajaloo gis seeni propriétaire ne leen kat ñun suñu liggéey dafa yàqu ñu buggoon nag ñu xoolaat naka la ñuy waxtaanee ci mbiru luyaas bi. Mhm. am na ci borom kër yoo xam ne dañ ne leen ñaata ngeen ngeen ngeen daan fay boo nee leen cent mille ñu ne la def naa ko cinquante pour cent dee leen fay cinquante mille léegi ba jamono. change mais loolu il faut que. borom kër yëpp acte la. Mhm. parce que ñoo bokk réew mi. Mhm. tey da ngay gis borom kër yoo xam ne dañuy mel ne locataires yi seen ay noon lañ. da leen di romb ñu xeeb la di la. fayal wala nga génn sama kër mais leen di romb sax nuyu leen duñ la fay. léegi léeg ndox mi ñu couper ndox bi couper ndox bi couper courant c'est inhumain c'est inhumain te am na ñoo xam ne même bu fekkee nit ki fayul il faut respecter les droits humains mhm. loolu voie de fait la jotewul ak location dara nit ki bu dëkkee war na am ndox war na am courant donte fayul da ko war a yóbbu ci yoon ñu génne ko mais voilà locataires yi am na ci ñoo xam ne jubuñ ñu ñu ñàkk jub fépp la am mhm. fépp la am te ku jubul yoon a ngi fi pour ñu yóbbu la fa mu ñoo xam nag élément neexu ñoo défendre de ah dañuy wër këru këru jàmbur yi am na ñoo xam ne xasee fay ak kii c'est c'est terminé ñun am na ñoo xam ne recensé nañ leen ñoo xam ne mhm. seen avance ak seen caution ak seen euh, commission la ñuy la ñuy yor suñ la ko xasee jox pare nañ dawal ak yow un an wala deux ans ngay muñ di muñ ngay muñ te loolu tamit feneen dem feneen du àq la sax mhm. àq la mhm. ki tabax këram sonn ci xamoo lu mu ci daj xamoo nu mu def ba am ko nga ñëw dëkk fa ne doo fay yaa ngi dundee àq su fekkente ne ñun nag mënuñ lu dul ñaan. Mhm. lancer appel bu fekkee locataire bi fayul kenn mënu ko couvrir amul parce que du ma tabax sama kër nag quand mhm. nga ñëw dëkk fa ba pare di ma jaay doole c'est pas possible léegi nag li am ba am mooy il faut ñu humaniser les rapport il faut ñu waxtaan parce que ñoom ñaar locataire ak bailleur. Mhm. ñoo seq secteur bi. bu fekkente ne bailleur bi dafa jàppee locataire bi noonam moom locataire bee koy may xaalis locataire bi bailleur bi moo koy jox fu mu dëkk. Mhm. il faut ñu humaniser ko même loi. Mhm. war na fa mën a ñàkk bu weer dee fayal soo amee problème demal toog nga expliquer ko gis nañ ñoo xam ne. locataire ak borom kër wala ay locataire yu dëkkandoo dem ba tuddante doom. Mhm. seen jabar yi di ay ayloo ci benn kër. donc i Sénégal loolu la xam loolu lañ baaxoo. mais dañu dem ba recopier la société occidentale à telle enseigne que léegi. amatul benn yërmande. relation yi dafa am benn froideur boo xam ne xaalis xaalis voilà jeex na xaalis boobu après da ko fii bàyyi dem léegi euh, ya sànq yaa ngi doon parce que temps bi bareetul borom kër yi souvent dañuy wax ni Euh, ñu si bëri dañuy leb xaalis banque parce que kër yi bëri gis nga mu jóg mais xaalisu banque la moo tax mhm. location bi encore gën a cher mhm. dañuy dem leb cent mille deux cent millions euh, banque ñëw tabax seen kër euh, loolu tamit lan nga siy wax souvent ñoom explication yooyu la ñuy joxe que moo tax location bi cher ak tamit état bi taxe yeeg impôt yeeg fer beeg ciment beek ñoom seen tout est cher dëgg la loolu moom dama koy mhm. reconnaître ak ñoom état ñun bi ñu bokkee ci commission sur la baisse en dañ ne woon état il faut bi ciment bi ak lépp lu jëm ci tabax ñu xoolaat ko ba oyofalal ko borom kër gi taxi yeeg yooyu yëpp. ñu oyofal ko ñu oyofal ko ko parce que doo imposer nit ki ne ko da ngay wàññi ba pare te. defaloo ko si dara très bien loolu d'ailleurs moo tax borom kër yu bëri ne ñun wàññiwuñ ñoo bañ. Mm-hmm. beneen bi muy banques yi banques yi taux yi ñuy exercer c'est de l'usure. Mm-hmm. tey mën nañ la 6 pour cent. nga dem ba ci biir presque treize pour cent wala douze pour cent ngay ngay ngay retrouver mais loolu il faut que état agir à ce niveau la mais dañu bàyyi banque yi ñu xoj ñi nga xam ne ñooy ñooy bailleurs yi mhm. mais bailleur bi aussi tamit xoj locataire merci beaucoup mhm. mais bailleur te lépp ci ci locataire bi lay répercuté wu encore bon si néew di doole bailleur bi aussi mhm. Ndeye Comba man su ma demee ba jël sama initiative lépp investir mënuma am retour sur investissement pour amortir ko dans les deux ans ou trois ans qui suivent c'est tey bu ñu fekkente ne dañuy wax cherté intrant yi yi jëm ci tabax mm-hmm. dañuy wax financement parce que am na démb benn waay bu ma doon defal euh, émission mm-hmm. mu ne les trois F mooy foncier fiscalité financement loolu mooy problème bi nga xam ne moo indi cherté loyer bi mais ci fiscalité ci ci euh, financement yi mm-hmm. état war na mën a bonifier les taux taux bi mooy bu ñu nee 7 pour cent la état ci logement sociaux yi par exemple ne léegi dinaa jël euh, wàññi ko ba 2 pour cent. su ko defee yow booy fay du la sonal c'est-à-dire état am na levier yu bëri yoo xam ne. Mm, donc avant ñuy voté loi en 2014 waroon nañu jël ay ay ay ay ay. merci waroon nañu ay conditions. très bien pour jàppale borom kër yi bala ñu leen di imposer. quoi que ce soit merci léegi nag. Mm-hmm. président waxaat na. énième fois mm. man nee naa war naa sonn gars nee nañ ko nag bu laal loi bi parce que ñun lott <laughs> nañ war na sonn sax ci appel yi ndey Kumba il a tellement lancé d'appel mm -hmm. depuis bés bi chaque fois conseil des ministres veillu élection lay lancé appel mm appel yi doy na xam nga lan moo des mm-hmm. moom xam na problème yi ay ministres am xam nañ problème yi parce que ñun ñooy dundandoo nañu tëju ñoom en tant que service technique de l'État ñu travailler de façon impeccable de telle sorte que bu génnee dinañ ko mën a teg rek dérouler mais bu fekkee dañuy waxaat wax ju bari ji jaru ko. ñu def ci ay émissions yu dul jeex wax a wax ba géex day mel ne dañuy servir benn affaire rek. mais mais mais fan yi gars yi dañ ne maanaam Macky bu mu waxaat lu jëm ci luwa bi. waaw parce que lu ñuy dund depuis 2014 locataires yi dañu souffrir donc bu ñu ko laalaatee les locataires vont encore plus souffrir. waaw parce que actuellement fii euh, prix wu location bi nekk nekk fa woon. avant 2014 c'est c'est parce que aussi. la ñu war a def defuñu ko. parce que bu fekkee da nga def 2014 benn loi wàññi. dafa war a am ay garde-fou mhm. ndey kumba boo gisee affaire yi delluwaat fii mhm. c'est parce qu'il y a pas suivi man nag li may wax mooy wàññi ou pas wàññi nañ ko réglementer tout tout court mhm. suñ ko réglementer day auto autoréguler boppam ba pare jàppale les les bailleurs c'est ça léegi fexe taux wàññeeku loolu yëpp ci réglementation bi la par exemple balaa may jël benn décision dinaa xool lan mooy cheral loyer bi te loolu ngay wax ni par exemple oyofalal borom kër yi sax am na ñoo xam ne ba ñu jotaatee lañ defoon ci seen batiment yàgg na mm, mm-hmm. tey boo demee ci quartier yu yàgg fa la gën a chéré mm-hmm. donc kii soog a tabax mën nañ ko accompagner comprendre mën nañ ko accompagner sax ne ko voilà yow léegi état dina la topp dimbale la mën nañ la bàyyi sax nga nga nga fonctionner d'une certaine façon. Mm-hmm. mais ñi nga xam ne parce que durée d'amortissement bi. seen def na vingt ans ainsi ñoo ñoo gën a cher. mais léegi bu fekkente ne état organiser waat na loolu yépp mën na nag. dans chaque commune mu ubbi fa un bureau d'enregistrement des loyers am ubbi xe bëtam mën di récupérer ay taxam di ko injecté waat ci secteur bi et au finish nit ñi am seeni kër tey bu BRT bi pare TER bi pare mm-hmm. autoroute à baa ngi fi nit ñi démystifier nañ léegi dëkk ay euh, jam ñaajo Lac Rose mm. nit ñi léegi mën nañ dem dëkki foofu foo nekk mën nga fa am na ñoo xam ne sa kër balaa mooy pare sax mm-hmm. avant ngay raax sax nga dem dëkki mm-hmm. mais il faut ñu faciliter l'accès au foncier logement sociaux yi si laa bëggoon ñëw parce que am na logement sociaux yoo xam ne euh, euh, vraiment c'est pas du social pour cas social c'est pas du social parce que bu fekkente ne treize million douze million jëm kaw mm. kan kan moo koy jox et euh, booy dégg cité magistrat cité impôt et des cadres est-ce que mës ngaa dégg cité des maçons. cité des mécaniciens. Mhm. cité des des vendeurs ambulants. Mhm. amul amul ñooñu nag ñoo ñoo fees ci location bi. il faut que ñu xalaat leen. te ñu seen loxo jotul seen ginnaaw. Mhm. te suuf si ñun ñëpp ko bokk ndey kumba donc il faudrait que état par par le biais de de de la de e SICAP. SNHLM. ñoo xam ne mën na leen a imposer ñu jaayee suuf si temps. ba pare mu topp leen pour ñu faciliter ko citoyens yi. Mhm. ñooñu la war a waxal. Mhm. parce que ñooñu pratiquement amatuñu doole. au profit des promoteurs privés. Mhm. promoteurs privés yi nag alal rek la ñuy wut. sans pitié. ñoom ñu écraser la dem seen yoon. seen yoon nekku ci donc il faut que loolu yëpp ñu xoolaat ko de telle sorte que euh, Sénégal lii fi xew nii buñ ci deful ndànk il y un problème sécuritaire je le dis souvent. il y un autre problème mooy. bis bu euh, euh, pétrole bi ak gaz bi ñëwee fii. Mhm. ba étranger yi fees fi dell. fees ñun dootuñu am appartement dootuñu parce que foofu laa bëggoon ñëw. comment se fait-il sénégalais bi su demee à l'extérieur ñu bundu xataal ko nga dem yow ba nekk sa réew. Euh, am na sax zone yoo xam ne comme ay côté université. li ko wër yëpp. Mhm. ay ay Fann ok ainsi de suite Point E euh, côté Médina bi. pratiquement pour nga am fa location c'est tout un problème parce que étranger yi la ñuy loué. pare boo demee bay ut location di nëbb ni yow sénégalais nga nekk au Sénégal loolu ça pose problème est-ce que loolu sax waru leen ci def marche wala manifestation ainsi de suite dénoncer ko. ñàkk gëm suñu bopp parce que injustice boobu man mënu ko comprendre. ñàkk gëm suñu bopp. loué tabax sa immeuble ba mu yegg. ne du ko loué sénégalais nga naan du ma ko loué sénégalais. ñàkk gëm sa bopp ak bëgg xaalis. te d ña ngi koy loué souvent dañuy ñëw fay la un an wala ñu fay la euh, ay six mois. Mhm. xamoo xaalis ba fu mu jógee. xamoo ko fa dëkk moom mooy sécurité bi ma la doon wax. Mhm. tey ku bokk matlaam yore ordinateur am ñëw mhm. dëkk. ñëw dëkk xamoo drogue lay jaay xamoo bandi la. yaa ngi mettre en danger. ñi dëkk ci kër ga ak ñi dëkk ci quartier bi yëpp. donc il faut que lu ñu bëgg bëgg xaalis lu ñu nekk nekk à la recherche du gain. ñu xalaat suñu suñu ëllëg suñu sécurité réew. ak suñu sécurité njaboot. mais bu fekkente ne nit ki. yow li nga xalaat li nga jiital rek mooy alal alalu àdduna hmm. euh, yaakaar naa ne di nga dem ba un moment di nga toog doo tootal sax alal jooju il faut que ñu xoolaat suñu bopp hmm. parce que ndey ko est-ce que tamit loi bi koy tëggaat wala di ko xoolaat waruñ si xool loolu parce que c'est c'est injuste dafa nekk sax lu grave nga nekk à Dakar bëgg logement ñu ne duñu la loué parce que yow sénégalais nga sénégalais mais loolu loi daf ko tere ah Sénégal rek laay gis ñu gis ñoo xam ne ñu ngi def lu legaalul mm-hmm. ñu bàyyi leen ci mm-hmm. tey ñi koy def mën nañ leen xam facilement ñii demander quatre mois mën nañ leen xam ñi mhm. cinq mois ñii laajte bulletin de salaire mën nañ leen xam ñi nga xam ne ñu ngi nee du ñu loué sénégalais tey état lu mu bëgg a xam mhm. les agents de renseignement wala euh, brigade de recherche mhm. mën nañu civilu dugg ci dëkk bi xam ñooñu ñëpp buñ ci jàppee ñaar wala ñetti nit léegi problème bi rek réglé mais état il faut mu am volonté politique parce que affaire bi du lu ñuy xëy rek réglé ko moo tax bu ñuy def déclaration non la loi de 2014 maanaam dañoo war a togg ba mu ñor merci beaucoup Exactement. que te mhm. ñun Ndeye Comba aussi on est tey bu problème bi réglé woon ñun dañuy dem toog yi na man ay association mhm. locataire ak yooyu état géré ko c'est ça mhm. ñu bëri dañuy yaakaar ne da nga ciy wut dara fekk coono nga siy jële merci pour wut dara am na yoo xam ne dem defi politique sax moo gën a gaaw donc ñun lu ñu gëm la jàpp ne mission divine la sacerdoce la koo ci dimbale bu dee benn nit la sax mhm. tey yaa ngi defal sunu borom yaa ngi def fi sabili la donc mhm. il faudrait que ñu xam ne chaque sénégalais de quelque bor qu'il war na mën xool xalaat lan laa mën a defal sama réew et ñun ci ci ci foofu la ñu inscrire jàpp nañ ne kenn ku ñu dimbale euh, mais mais loolu nag Elimane mënoon mënoon ngeen si organiser marche waaw mais xam nga ndey kumba xam nga def si manifestation sensibiliser ñu xam ni lii réellement mi ngi exister mi ngi am fii Dakar mais est-ce que les que que yi mënatuñ euh, louer si yenn zones yi parce que am na borom kër yi nekk foofu nee nañ duñ louer sénégalais man sama kii ay étudiant laa koy jox ay étranger laa koy jox ñoom ñooy fay à temps et puis bu sénégalais bi di discuter benn cent mille étranger bi ñëw fay deux cent mille deux cent ñu jox ko ko c'est vrai que nee na man soo ma euh, joxee je paye deux cent tey jii am na beneen problème problème aussi ndey kumba mhm. boo génnoon fii tey nga woote. Mhm. nga ne ñu ci bëri ña ngay toog di naan seen. ñëw. ñu ne voilà gars yi lii la ñuy nekk di wax fii di sóob. Mhm. marche d'ailleurs ndey kumba problème yi mu réglé Sénégal bëriwul de. da nga fiy def marche ñu interdire ko def la répression nangam nangam. ñun à chaque fois que ñu constaté que am na benn injustice. dañuy bind ñi ñu war a bind ñëpp suñ ko réglé nag. on va dans la presse on va partout dénoncer évidemment ñun amuñu moyen wu mhm. tout le temps nekk sur le terrain di organiser tey déjà bu dee marche rek mhm. tey pour nga organiser ko il faut des moyens logistiques kat foo koy jële donc il faut que yooyu yëpp ñu xoolaat ko mais loolu yëpp pour mën cee egg il faut état déglu bañ a am euh, def sourde oreille mhm. et je pense que comme président la président de la république rappelé na ko plusieurs fois dinañ tëju nag ñoom seeni service def un débat inclusif waxtaan ak borom kër yi waxtaan ak locataires yi waxtaan ak banque yi waxtaan ak huissiers yi magistrats yi de telle sorte que bu ñu génne waatee lu mucc ayib lay doon dootul mel ne bu 2014. parce que ñu bëri comme ni nga koy waxee. nee nañ bu ñu laalaat bu ñu <laughs> laalaat parce bi lottu nañu. les gens sont fatigués fatigués léeg nit daf may woo. Mm-hmm. man damay jàpp sama sama sama bopp bëgg a yuux. parce que yi ñuy dund. am na ci yoo xam ne sax mënu la ko wax. doo ko mën a wóor na yàlla. parce que maa ngi gis benn post avant-hier Facebook waa ji bind na léegi pour euh, avoir un appartement au, à Dakar il faut être millionnaire. parce que da ngay ñëw ñu laaj la deux cent cinquante mille bu fekkee da ngay yor sa njaboot munoo jël benn mu noo jël chambre sa ak salle au lieu nga am deux pièces ainsi de suite wala trois pièces il faut débourser deux cent cinquante mille ñu laaj la quatre mois ça fait combien deux millions de francs CFA. nga versé ko te mois bi ci topp. waaw automatiquement da nga war a si dëkk boo xamante ni ñëpp xam nañ ni salaire yi demeewul noonu. léegi nag. waaw buñ ko réglementé def euh, les zones de référence. Mhm. loolu dina dina dina deñ mhm. parce que xam nga lépp mooy mooy li ma la wax rek suñ ko organiser. Mhm. état dugal ci loxoom parce que li ñu bëgg a organiser aussi ñu ngi koy organiser ah. tey bu ñu nee chaque commune la commune par exemple de euh, Grand Dakar ou bien de Grand Yoff li fa nekk ci ay kër yëpp. ñu recensé ko mairie bi recensé ko. Mhm. xool locataire bu nekk ñu utal la un numéro enregistré ko am base de données ba pare ñu ne locataire bu fayati il faut mu jaar ci ñun sinon bis boo amee contentieux dinañ la redresser. Mhm. bailleur buy contracté ak locataire na jaar ci ñun. Mhm. sinon bis boo amee contentieux tribunal dinañ la redresser les gens vont le faire. état xam na fi muy jaar. mais laisser aller bi mu am. seetaan moo tax loolu yëpp am li yëpp peut-être euh, dernier question ñuy euh, jàmbat location gis nga ne euh, temps yi dund gi dafa yokk carrément lan lan mooy si sa xalaat Elimane sama xalaat mooy pouvoir d'achat wu Sénégalais yi. Euh, dafa dafa affaiblir bu baax a baax a baax baax tey bu fekkee da nga am salaire génn ci location mu yóbbu plus de cinquante pour cent diw yokk na keroog dama dem di jënd bidon. lépp cinq litres bi. Mm, mm, mm, mu ngi daan jar ay cinq mille cinq cent. léegi dem na ba sept mille. ceeb bi yokk diw gi yokk. Euh, lépp menthe fraîche sax. waaw léegi cinq la léegi ñaar ñaar. deux moins vingt cinq mais c' extraordinaire. Mm-hmm. au vu et au su tout le monde personne n'en parle. Mm-hmm. donc il faudrait que. euh, les autres associations de consommateurs ñu mobiliser wu parce que li ñu boole. Mm. moo ëpp foofu li ñuy xaajale. mais tey la gën a métti mais dégguñu association consommateurs yi. alors oui, problème mm. ñun man de de toute façon ci mbiru loyer wax dëgg yàlla li ma ci mën maa ngi koy wax di ko def léegi nag dafa am ñoo xam ne c'est des généraliste bon mm. ils touchent à tout. tey am na ñoo xam ne ci loo leen woo mën nañ ci wax mais dama gëm ne consumérisme il faut être spécialiste spécialisé wu ci. denrée alimentaire spécialisé wu ci électricité ci. ndox ainsi de suite su ko defee de façon euh, profonde bi nga mën a xam secteur boobu. lan la nit ñi di jànkonteel. Mm, mm. mais on ne peut pas manger à tous les râteliers. lu ñëw nga ne dinaa ci wax bu ñu ciy joxee dara ma bokk ci. wallahi al lii ñuy def. Mm. séentuwuñ ci un franc amuñu ci un franc dañ koy def rek te yàlla tax léegi nag su ñu demee ba nga xamante ne sénégalais yi ñu ngi dund ay jafe-jafe. ñun association consommateurs yi au lieu de nu consacrer à l'essentiel mm. ñu nekk fii di def ay considération wu man maa yilif kii man maa jiite kii maa dàq a wax kii ça n'a pas de sens mm. li ñu boole moo ëpp li ñu war a xaajale li ñu boole mooy lan la défense des consommateurs sénégalais il faut repenser le consumérisme sénégalais ñu def ko autrement que tel que ni ñu koy defee actuellement mm. et je pense que sénégalais yi boo gisee booy wax association consommateur duñu la faale mhm. c'est parce que on ne prend pas suffisamment en charge mhm. les questions tey yokkute bii nii ban association consommateur presque presque dafa mel ni yëguñ ko sax alors donc il faut alors que ñu ngi dund donc il faut que mhm. euh, euh, soxna Ndeye Kumba euh, état jàppale ñu aussi parce que association consommateur tam ay bénévolat lañ bénévolat la ñuy def amuñu benn moyen il faut état jàppale leen ñu mën a xeex xeex bi pour dimbale ñi nga xam ne ñooy consommateurs yi parce que Sénégal nag fi mu ne pouvoir d'achat bi metti na mettiwaay boo xam ne ci transport. Mm, côté yëpp foo laal day metti te loolu arrangé wul état. Mm-hmm. parce que en un moment dina indi benn explosion sociale boo xam ne xoolal li amoon au mois de mars. Mm-hmm. mais li ko indi. crise bu profonde la bu am dans la société mmh. les gens n'ont pas essayé de décrypter dañu wax ay affaire Sonko nangam nangam mais c'est, les gens étaient fatigués et on actuellement location cherté vie bi ndox courant nit ñi mënatuñ ko supporter te suñu ko réglé wul wallaayil azim fa mu jëm du neex état. voilà Elimane Sall ma bàyyi la nga tàggatoo ak euh, auditeurs yi. voilà ndey Comba maa ngi lay remercier di remercier euh, waa réew mi FM di nuyu euh, le grand Diao jàll di nuyu voilà ñëpp ñi nga xamante ni nii ñu ngi ñu doon déglu. Mhm. di leen gërëm di rafetlu aussi seen liggéey. Mhm. vraiment lépp loo xamante ni yitteel na askan wi. si toute la ville en parlait. Mhm. ñëw na ci. càmbar ko indil askan wi loo xam ne ay réponse adéquate la mm-hmm. donc ñu ngi la ciy gërëm di la sant di rafetlu sa liggéey di ñaan yàlla aussi mu yokk leen Euh, yokk rajo bi ba ñu am réew Rewmi TV je pense que voilà euh, c'est le souhait qu'il qu'il faut lancer mm. et que ñun ñëpp ñu ngi leen di ñaanal daal di ñaan Grand Mbagnick aussi yàlla jàppale ko ci projet yi nga xam ne moom la yëkkati voilà mm-hmm. merci beaucoup Elimane Sall maa ngi lay remercier bu baax a baax pour sa disponibilité parce que waroon nga voyager mm-hmm. mais mm-hmm. da nga ko euh, kii ba ñëw ci émission bi donc maa ngi la remercier bu baax a baax xam nga woo nit nga war a nekk en voyage <laughs> bàyyi ñëw fii ci émission bi vraiment c'est un honneur donc ma la ci remercier euh, bu baax a baax euh, Elimane Sall nekk président bu association pour la défense des locataires euh, du Sénégal ñu doon waxtaane léegi pour lu soxal jafe-jafe yi jëm ci wàllum location file ci Sénégal ñu koy remercier ci leeral yi nga xamante ni indi na ko ci fànn woowule di remercier Mamadou Diawa Diallo bi nekkoon ci cabine technique bi ak yéen suñuy auditeurs yi ànd ak ñun chaque samedi de 10 onze ci beneen émission euh, beneen temm ak beneen invité émission bi mën ngeen ko euh, dégluwaat ci suñu site internet www.rewmi.com wala ci suñu chaîne euh, YouTube Rewmi officiel jaa ngeen jëf ba samedi prochain incha allah